collectivité territoriale yi di woyal seeni ñaxtu ba léegi ñoom ñi leen nag daal di génn di ñaawlu anam bi nga xamante ne nii noonu la agent yi di jànkonteel seen i bërëbu liggéeykaay lépp lu jëm ci seen wàllum salaire. loi 2011 ci article 29 ba dafa ne que bépp yokk bu nga xam ne agent état am na ko d'office agent collectivité locale yi dañ koy am de niveau équivalent article bi teg ci que. agent bi li nga xam ni moom lépp lu mën a yokk ci saleeram aussi dafa nekk ci ndoddu collectivité locale wala service utilisateur am donc man je pense que loolu non c'est exactement noonu la deme donc ay disposition loi la loolu kese la ñuy laaj. recrutement clientéliste jàpp nañu looloo waral coow lii yëpp daal di am mbir yi. daal di jaxasoo bu baax a baax seeni biir moo tax ñu jàpp nii ngir rek ñu mën a saafara li ni mel faaw rek ñu xoolaat anam bu ñuy recruter ñenn ñi. convention collective ay disposition code du travail la nous ne sommes pas régis par le code du travail parce que loolu dama bëgg mu leer disposition générale code du travail article 2 dafa ne un un agent permanent d'un cadre d'une administration publique n'est pas soumis aux dispositions. du code du travail donc cela signifie que ñun agent public lañ donc code du travail du ñu àtte mais agent yoo xam dañ leen ne recruter par rapport à une convention collective wala ñu recruter leen par rapport ak ay dispositions du code du travail ils ne sont pas éligibles tant que seen situation en tout cas renoncé wuñu peut-être ci boobu ñu jël leen ñu jël beneen changer seen situation pour nekk agent non fonctionnaire. yaakaar daal di judduwaat ak nguur gu bees gi daal di toog. état dafa war a intervenir sous de dotation spéciale. effectivement c'est ce que nous demandons à l'État maintenant état dafa war a seet ñi nga xam ni mën nañ ñu fay ñi mënut état accompagner leen en vertu des dispositions de l'article 282. wante rek mu mel ni askan wi moo nar a dund li ni mel ndax dina jafe ci askan wii ñu daal di saafara seeni i jafe-jafe saa suñ demee ci yenn mairie yi loole nag lu ko waral mooy daanaka service yu bari dañoo daal di tëj seen i bunt.